Je dañu euh ànd ak euh, inspecteur de l'enseignement euh, de l'éducation et de la formation bu Mbacké ak équipe avec ak médecin chef de district commissaire euh, de Mbacké ak partenaires sociaux yi représentant président association des parents d'élèves ak syndicalistes pour nous dem xol si écoli. yi ba xam euh, euh, protocole li ñu naan protocole sanitaire maanaam matuwaay yi nga xam ne waroon nañ ko jël pour que décision bi nga xam ne gouvernement ak euh, enseigne ak syndicat d'enseignants ak parents d'élèves yi jàpp nañ ko ne war nañu mën a reprendre njàngale mi est-ce que protocole boobu respecté nañ ko jàpp nañu ne fi jaar yëpp li nga xam ne moom thermoflash booy fekk ci bunt bi

loolu lépp dina xaw a réer nit ñi mais gis nañu ne euh, ñëpp xam nañu ne euh, am na lu fi ne muy mbas mi feebar la te niñ koy moytoo mooy rek ñu respecter li ñu naan geste barrière te loolu li si gën a am euh, li si gën a yéeme mooy que mel na ne sax xale yi ñoom ñoo ko gën a comprendre te loolu bu fekkee am na rek war nañu war a mën a am xel mu dal te ñaan yàlla que fii ñaari weer yi xale yi dinañ mën a jàng Nous rek am ñu examen euh, Sénégal euh, taux de présence Nous euh, enseignants yi nous enseignants vraiment même si nous lycée ak CMB, je crois dem nañu bané sax amna enseignants cours mais ñëw nañu pour japp donc muy vraiment enseignants engagement pour que pour que année bi ñu ñu réussir ko et amener nañu engagement également pour que ñu veiller ci protocole sanitaire bi comme ni ñu ko parce que loolu aussi lu am maanaa la te ñoom ñoom ñooy sentinelles yu yi je crois que loolu les tout réuni war nañu war a mën a d'accord des taux de présence bi ak euh, si enseignants yi ak si élèves yi loolu lépp war nañ ko war a constater comme lu am. maintenant pour rentrer bi comme ni ñu ko waxee am nañu ñaar ak ñaar fuk ak euh, ñetti école yoo xam ne war nañu ubbi ci département bi école yooyu ba ñuy xayma xale yu ci fara jàng toll nañu ci ñaari ñetti ñaari junni ak ben, donc fukki junni ak benn ci di onze mille ah fukki junni ak ben ak daanaka genn wàll donc ñoom ñoo war a tey reprendre chemin école bi donc disposition yi ñu jël nañ ko pour que xale yi bi ñu ñëwee allah liggéey ci maanaam lépp li nga xam ni waxoon nañ ko ci préalable yi maanaam lépp li nga xam ne mooy tax école ubbi mu lu wàllu muy wàllu thermoflash muy wàllu masque muy wàllu lave-mains yi lépp chaque école maanaam école bu nekk am na ko ba nga xam ne xale bi ñu ñëwee seen kaaraange ci wàllu wér yaram daañ ko sàmm te loolu aussi dañ ci liggéey ñu nekk waa district sanitaire ñoom it ñu leen ci remercier bu baax a baax parce jàppale nañ ñu ci wàll boobu ba nga xam n lépp li nga xam ne war nañ ko taxawee taxawee nañ ko ba incha allah nañ daan ci am ndam incha parents yi comme nu ko waxee rek lu mel di lancé mooy ñu gën a ci liggéey bi xam aussi ñoom ay acteurs lañu donc fu mu nekk nii ñëpp ñoo war a seen loxo parents ñoom nañ dugal seen loxo jàppale ñu te am yaakaar ni lu leen wax incha ci ku indi sa ci école ñun taxaw pour ci ci taxaw baax li nga aussi war nañ ko muy force de sécurité yi may remercier au passage monsieur le commissaire ñoom it ñoo ngi taxaw pour mu ñu jàppale ci wàllu pour di ko wax dëgg yàlla lépp li nga xam ne daal mooy kaaraange am na ci école bi donc di wax parents d'élèves yi bu ñu am benn lu ñuy xaw a tiit wala leneen que lépp ñoo ngi ci pour que xale yi mën a jàng ci jàmm. Euh, lii nga xam ne moo gënoon a dalal moo gën a dalal suñu xel en tant que waajur mooy bi ñuy dem dañoo ànd ak médecin chef bi nga xam ne ci wàllu wér yaram lépp li nga xam ne euh, dispositions yi ñu waxoon ne dinañ ko fekk. ànd nañ ñun xool ko be xam ndax nekk na wala déet dégg ngeen appréciation donc loolu ñun en tant que wéyjur nekk na li nga xam ne dal nañ suñu xel ci lii nga xam ni moom la ñu gisagum ah am na it ay recommandations yu ñuy jox yi nga xam ne élèves yi dégg nañ ko ñun seeni wéyjur tamit dégg nañ ko mu doon li nga xam ne daal ñun jàpp nañ ne su fekkente ne mbir mi wéy na nii en tout cas ci wàllu wér-gu-yaram am na ñu yaakaar ne yàlla dinañu musal. ci mbes mi nga xam ne moom moo ñu tiital ñun ñëpp euh, loolu moom ñu ngi ci gërëm vraiment euh, autorité yi euh, ñu ngi ci gërëm gouvernement bi parce que ñun ñëpp tiitoon nañu jaaxle woon nañu amoon nañu déet njaqari ci nan la mbir mi war a mën a ci li ñu gisagum dal na suñu xel donc di wax ni rek visité nañ juróomi école wante li ñu gis ñun en tant que prestataire technicienne dal na suñu xel parce que fépp fu dem gis nañu respecté nañu en tout cas normes sanitaires yi dispositif lavage des mains euh, masque yi yi classe aussi ni distanciation physique bi kon ñun suñu xel dal li ci kon parce que euh, approche multidisciplinaire la transport bi tam transporteur yi tam ñu ñaan leen li nga en tout cas que ce soit enseignant personnel administratif élèves yi respecté ko ñoom itam nañ ci jàpp ba nga xam ni li ñu def fii du naax saay ci transport bi kon ñu ngi leen di ñaanaat famille yi aussi bu xale yi accès nañu ci jàpp li ñuy leen jàngal ci kii bi ci euh, école yi parce que école bi c'est une seconde famille bu ñu demee tam ñoom itam ñu nekk relais au niveau de leur famille su ko defee li ñu leen jàngal yëpp ñu mën koo respecter xale yi aussi bu ñu wàccee bu ñu àggee ci kër yi bala ñoo jaxasoog nit nii nañuy war di raxasu donc kon ci biir kër yi itam loolu war na faa am ñuy ñaaxaat en tout cas askan bi ak famille yi ci loolu. ah xanaa di wax ni xel dalani na parce que mën nañ jàpp ni euh, tey bi ñu xëyee ànd ak préfet ak CDD bi def nañ école yi gis nañ ni euh, wax dëgg yàlla matériel bi bi ngi sur place gis nañ ni aussi que protocole bi amuñu ci. xel mu tey que ni nit ñi danañ ko respecté ndax mobilisation bi ñu fekk ci jàngalekat yi euh, nga xam ne ni préfet wax na ko léegi ñoom ñëpp teew nañ ba teew nombre boo xam ne sax vraiment euh, kii na suñu njort même teewaay boobu aussi gis nañ ko ci élèves yi li ñuy wax rek di ci bàyyi nit ñi pour ñu bàyyi ci xel mooy suivi bi fexe ba duñ am relancement duñ bàyyi parce que bu ñu ñëwee tey euh, dem suba bàyyi dafay mel ni lu ne mën nañoo song surtout que lii nga xam ni kenn maîtrise ko mais dafa mel ni préfet rassuré na nañ foofu parce que nee na danañ jël siwaat danañ dellusiwaat pour dire que danañ veiller à que quand même ñu respecter man euh, maanaam euh, protocole boo nga xam ni def nañ ko si si place.